mais ñu ngi am dund nañu fukki at ak ñaar président de la république boo xam ne fàlliwul justice sañ naa ko wax nag faydaalu ko ndax xam nga fàtte nga ne soppi na constitution juróom benn yoon ci fukki at ak ñaar juróom benn yoon suñu loi fondamentale noonu lañ koy tuddee mm-hmm. soppi na ko juróom benn yoon kooku faydaal na constitution ñaareel bi dund nañu ñaari mandat yu tegle kenn gis autant d'affaires politico-judiciaires te li ci ëpp opposition la ak opposant te opposition ak opposant yaa ngi teg yoon yaa ngi constitution ndax constitution elle garantit le droit de s'opposer et de l'opposition. dafa beaucoup de démocratie mais suñu constitution dafa de dañu war a yow chef d'État gardien de la constitution ni koy je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression Tu nga waat ne di nga respecter constitution ci kanamu yàlla ak sa kanamu askan kon loolu di tomb bu njëkk bi war nañu toog ba mën a am saña am président de la république boo xam ne day nangu ne constitution c'est la loi fondamentale ba soppi ko nag jot euh, war na ndax boo ko moom soppi na ko juróom benn yoon ba duggal ci loo xam ne daf ci war a ak itam ñu indi loo xam ne te loolu bokk na ci suñu programme président de la république dootu mën a def lu ko neex le président de la république itam bu toogee ba jëf loo xam ne teguwul ci yoon ñu war ko topp yoon ba mën ko wàccee sax loolu dafa warul ah, dugg ci sañ en plein mandat ah oui redevabilité et remise en cause du mandat destitution kooku dafa war a am ndax dara lu la neex def non loolu c'est pas possible ñaareel affaire politico-judiciaire wax ko musuta bare nii mu am lu ci top. te loolu opposition itam war na ci bàyyi xel ndax toll nañu foo xam ne bu yoon dogalee waxuma ne tous les magistrats sont à 100% pour cent compétents et intègres waxuma ko ndax am na ñoo xam ne ci dëgg-dëgg dañuy topp ndigal am na ñoo xam ne itam du ci sori waaye wax nañ leen rendre li ñuy wax indépendant des partis Voyez, état toll na foo xam ne dogal mune ne jëf opposition toll fo xam ne dogal mune ne ko nangu fu jëm attention hein justice mooy yoré réew paix jam, justice ci kaw justice le gën a kon nañu moytu. léegi def ndank magistrature aussi lu waral. magistrature aussi. ñun liñ ci wax mooy. lu waral mu dem ba bu dogalee ñi mu concerné ne du ko appliquer. c'est ça loolu laa wax ma ne ma ne muy muy mais muy état. mu jógee ci état mu jógee ci. opposant de part et d'autre oui. part et d'autre attention justice da koy nangu di ko dox di fi fi mu yem waaye nag am na itam réforme de la magistrature hein bu ñu indi kooku moom kenn mënu ko làq te mu ci lan président de la république ak exécutif nañu génn ci doxalinu justice nañu génn ci malay lay fal malay lay yóbbu fii maa lay ndax ku gérer sa carrière presque mom na la xana nga <laughs> nga ragal yalla deug deug deug deug voilà kon y a des y a des amna ay jéego yo xamné ne yépp ñu ngi ci suñu programme ndax mëna indi indiwaat euh, indi d' d'accord d'accord ci walu Sénat dañ gis né fan yi euh, amna de nouvelles nominations yu fa am euh, ñu ñu dindi fa ndir Doudou Ndiir tek fa Abdoulaye Sylla mu ñëw nekk président ak une nouvelle équipe mais fofu aussi on a noté une polémique ban commentaire nga ciy def waaw loolu d'ailleurs Ndiaga Sylla moo ma neex maa tey ñu ngi ci lii moo ma neex maa tey damay woné sama doole jaay doole dal da daf fi bari hmm. té lolu c'est une forme d'injustice jaay doole wayé fofu itam dañu wara fay dal fonctionnement des institutions ndax dundon nañ ko bëccëg conseil constitutionnel bu se retraite joté na nga dem retraite bu fekkee ne tout na ci texte yi la contre la loi bu ngeen mëttalulee dans na cour suprême bu vous tok di dogal ndax président de la république li président de la république na ngeen qu'il y a indi keneen ku remplacer